asalaamaaleykum ah, mbokk internet yi ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk fii nii à ah, dakarnet point com tey nag ah, ñu amoon mbégte ak contentement di dalal Alliance Baldé nekk xale nekk ci làmb waaw mun naa ne sax lu mu def ci làmb bariwul mais tey jii foo ko tudd ci làmb ñu joxañ ko te moom la ñuy dalal di waxtaan ak moom dañ koy jox kàddu yi mu nuyoo après dikk ak moom ci waxtaan Alliance ñu leen di di la ziar. maa ngi lay ziare di bëggee waa Dakar. net di lay wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di nuyu sama wasila sama xarit sëñ Abdou Baara Mbacke Fallilou bu Serigne Baara yàlla yàlla guddal fanam. barke naa Mohamed di nuyu senegal yëpp di ñaan feebar bu fi nekk suñu borom suñ borom jëlee ko fi. barke Seydina Mohamed jëlee ko fépp si àdduna. waaw waaw comme ni ko gisee yaakaar naa ni xamee ngeen ko léegi ah, dañuy dugg ci sujet bi rek waxtaan ak moom waaw ah, lu leen njëkk a mooy que ni ah, Euh, la moo la influencé ba nga defoon vidéo bi euh, di wax euh, Ablaye Diop Khass ba tey yoon tegoon la ci loxo ñu bëgg a nag loolu lan moo la ci dugal. waaw comme comme Sénégal lañ nekk. te dafa am loo xam ne sénégalais ñoo koy wax borom baatu kese du xeex ak boroom cax. Mm-hmm. am na yoo xam ne bëggatuma ci sori comme am na yoo xam ne duggoon naa ci ba yoon tegoon ma loxo mais sant yàlla comme desin la lu war a am la. am na maa ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax Ablaye Diop xaas tamit xam na mhm. ku baax la après waxtaan nañ. Mhm. waaw li ci des yëpp ay détails la. mais tamit dañoo dégg ne sax amul ñu nekk sa ginnaaw di la wax loo wala am ñoo xam ne la jox xaalis pour nga def vidéo yooyu. waaw parce que loolu bari na ñu koy wax dañu ma jox xaalis pour ma wax man xaalis fekkul sama bët. Mhm. dama waroon wax wax naa. d'accord mhm. léegi bu la arrêté euh, euh, yóbbu la comme ni ñu ko comme ni ñu koy déggee. Mhm. police yu police Pikine nga fanaan ko 7 jours. ñooy laaj euh, yow loolu noonu lan nga ci jàng bi nga demee ci biir kaso bi. non jàng naa ci àdduna am na lu ma ci jàng loo xam ne benn beneen yoon. Mm-hmm. lépp lu may wax dinaa ko xool bu baax a baax a baax parce que Sénégal mm-hmm. mun naa ne dañuy jàpp dëgg def ko mu nekk toor mm-hmm. maanaam boo nekkee ci àdduna bëgg a mucc dangay ngay xool nan la ak naka la parce que fii amaana fii dëgg yomb fi quoi waaw fi Sénégal dëgg yomb fii waaw li ci des moom def naa fa sept jours jàng naa ci lu bari maam commissaire bu baax bu ma fekk nag muy maam Arona Ba. Mhm. Mm, buñ ma attee ba pare daf ma woo bureau jox ma ay conseils waxtaan ak man. Mhm. lu jafe waaw. Mhm. maa ngi koy siyaare bu baax maam Arona Ba commissaire bu Pikine. aussi tamit ku la xam aussi xamee la ci làmb xamee la ci tamit ah, comme ni ma koy waxee rek ci làmb daal. léegi yow ñooy laaj bi la fa yóbbee sa premier jour. ñu fa war a fanaan. yow léegi loolu lan la def ci yow. waaw premier jour bi foogee ma ko parce que lu tax foogee ma ko bi ñu ma koy wax maa ngi nekk ci benn place am lu ma doon jënd foofu. Mhm. benn ñu woo ma téléphone ne ma alliance ma mu ne ma ab laa Diop xaas daf la fi convoqué. Mhm. ma ne ko ah ma mu ne ko ban heure mu ne ma quinze heures. 14 mhm. heures cinq fa la ma fekk fa laa toog ba 21 heures moom muy doog a ñëw. yow yaa dem wuy wala dañ la jël si. non man maa dem wuy ji. man 15 heures laa fa dem moom mu ñëw 20 bi mu ñëwee ñu dugg ñu mu wax après man ma wax commissaire bi ne ma dañ lay dugal ci giri bi fi ngay fanaan. Hmm. moom problème ma gedd samay bagage dugg toog. dugg toog def mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi. Hmm. vendredi bi tàppale nañ ma ba ñu may defeere après ñu ñu ñu dugalaat ma ci biir. Hmm. defeere ñeneen ñi ma fanaanaat fa samedi dimanche lundi. doog ma tàppale defeere ma. aussi tamit euh, ñu gis que ni boo nekkee ci problème mun naa ni doo gis am na ñoo xam ne doo leen gis say bokk rek ngay gis mais bi nga nekkee ci biir jege la bi nga ñëwee yow boo ko gisee waaw euh, bi nga ko gisee yow lan moment boobu noonu lan nga dund waaw métti na trop parce mun naa ne premier jour bi kenn rek laa doon gis mhm. parce moom laa ko waxoon muy Ndey Njaay sumu benn jigéen mhm. mais am na loo xam ne kenn mënu ko nëbb mhm. après nag comme su may mbokk jot nañ ci Bécaye mbay sonn si trop mbay Mbaye Pape Modou. Mhm. ñoom ñëpp dañuy def déplacement ñëw police ba bàyyi bàllam bu. axlu làmb quoi axlu làmb ñëpp mhm. dañ ciy def dox ay jéego. Mhm. ak Kéba Kanté sonn na si trop. mais après comme comme lu war a am la rek ma ne naa toog dund ko. voilà tëdd ci karo yi pendant sept jours huit. mais sant yàlla daal sant yàlla waaw. mais mais tamit est-ce que mën nañoo xam affaire boobu noonu bi koy génne defaat na ci yow jàngat toogaan nga xoolaat ne lii tey bu nekkoon tey la dootuma ko defati mukk. non jàng naa ci lu bëri. mais tamit am na lu bëri lu ma ubbil am na lu bari loo xam ne may na ma ko ci. Mhm. parce que dem naa ci ba ay kilifa dañ ma doon woo ma ñëw ñu waxtaan ak man parce que ku ne ak ni ngay jàngee wax ji. Mhm. ku ne ak ni nga koy téwee mhm. sant naa ci bu baax a baax a baax xam ne loolu la rek jàngal na ma àdduna am na lu ma jàngal loo xam ne bientôt dinaa xam nan la ak naka la. isa xam nga leen su man di jaay. moo nekk leet naa mu jiite képp kuy gendarme. Cheikh Sène. mais bu ñu waxee ay waxu woote dama leen bu ko kenn woo na yoon def liggéeyam. Hmm. parce que man loolu laa gëm. Hmm. waruñu ma ñaanal ci loo xam ne du yoon. Hmm. dañ ma war a teg ci yoon bu ma wàccee yoon. d'accord. dem naa tribunal taxaw naa juge bi laaj na ma wax naa génn naa après woowaat nañ ma. dem naa kër laa Diop xaas dem naa vidéo. moom tamit mu nekku ñàkk i ñaan parce que après woo na ma téléphone waxtaan ak man. mu ñëwee may na ma alalam. Abdoulaye Diouf ah kon waa ah, kon kay est yi kon nekkul lool loo tax ñu dara may xaar mais 4 millions ak terrain boobu noonu xam rek dama koy dégg nii. Hmm, hmm, mais may na la xaalis est yaa xaw may na ma xaalis nit la may ci alalam da nga ko koy barki Serigne jox na ma paas may xaalis hmm. joxuma sax CFA kon may na ma xaalis. may na la xaalis waaw. aussi tey bu la gisee ah, ci ah, ci site ci site internet yi nga génn yëpp sa benn moo lenn la mooy. maa maa tooñ maa ngi tuub maa ngi jégalu léegi ñu gis ne loolu noonu est ce nekkul dafa yomb trop. waaw ku ne ak ni nga koy jàngatee parce que dégg naa. Mhm. jox nañ ma 3 millions pour ma wax ak terrain. waaw ba pay jox la waaw loolu tamit dégg nañ ko naa ko si 3 millions ak terrain. Mhm. waaw mais xam naa kon terrain bi ak 3 millions day waaj ñëw. Mhm. ah waaw xam naa day waaj ñëw. est nekkul loo tax nga nga nga foo toog na maa ngi tuub maa ngi jégalu yombal affaire yi. non parce que mun naa ne loolu rek moom mu ci munoon génne. Mhm. parce que ku xamul xamul. Mhm. mais man loolu ma def xam naa ne moom mu ci munoon génne. Mhm.